rendez-vous bi nga xamante ni joxe ngeen ko demain aussi CICES ngeen di préparer cérémonie bu mag euh, prix Amadou gàkku est-ce que mën nga ñëwaat un peu ci cérémonie bi. waaw euh, nga may ma tuuti rek mooy daal di baakaba little bit parce que euh, li ko andi. Mm. dafa am benn bailleur boo xam ne kii yaa kii anonymat total bëggul kenn ku tudd ay waxam moom dafa topp du Gakou depuis 1968. mu gis en lui un africain boo xam ne africain bu mët a bàyyi xel la rax dolli ci euh, mu am koo xam ne xaritam la depuis plus de quarante ans ñoo nekk muy un sénégalais di Birima euh, yat mu xam na ko bu baax parce qu'il travaillait au ministère euh, de la jeunesse et sport kooku di ko wax ci Amadou lu bare bari bari ci jikko mooy après ñi nga xam ne defar na euh, li muy def exploit bi muy def à Mexico euh, léegi nag mu daan ne moom dafa bëgg offrir Amadou comme rôle modèle à la jeunesse sénégalaise mm-hmm. alors ñun tamit euh, ñu daal di sauter sur l'occasion ñu ne bon écoute comme loolu la léegi lan na ñuy def dañuy changer paradigme yi paradigme mooy lan fi mu nekk nii on va plus se focaliser sur le 400 mètres on va se focaliser sur l'athlétisme en général et on prend le meilleur ak la meilleure athlète. Mhm. en U20 voilà parce que U20 pourquoi parce que simplement seen marge de progression la. parce que kenn ku gagné ren dina mën a am marge de progression boo xam ne avant muy nekk senior parce que at mi c'est dans la durée. c'est dans la durée Usain Bolt boo xoolee par exemple euh, kii boobu ngay gis ne. Mhm. bi muy daagee daw léegi dafa yàgg. léegi nag ñu daal di ne bon léegi on va offrir. Mhm. Euh, si lauréat yi. 500000. au premier ki nga xam ne moo ci ci garçon yi ak cinq cent mille francs xale yi ku jigéen ki léegi ñun ci suñu bopp ñu daal di defar ay trophée parce que c'est lui aussi qui a financé les trophées mhm. ñu defal leen ay trophée habillé leen te bëggul wax kan la te bëggul wax kan la il a financé mais il ne citait pas voilà léegi nag euh, demain la ñuy sargal ñooñu te it ñu profité ci occasion bi parce que tamit ñi safoo amul dañoo bari macha allah keroog dafa dem woon euh, di dem gàmmu jarbaat yeeg sët yeeg ñëpp ne ñoom ils vont faire benn délégation boo xam ne mucc ay jigéen Tiwaawoon war a ñëw pour di ko sargal si. am na solo. voilà waa Tëngéej te bi nga xam ne foofu il laa fait ses premières armes là ñoo tamit nee nañ du ñu nekk en reste. cérémonie bi fu muy amee 6h. 6h ban heure lay tàmbali à 10 lay commencé. bañ a kaa dinaa ñëw kay. Pape dinaa ñëw. 10h lay commencé 13h ñu pare ko incha allah. incha allah